beneen détournement bu rëy rëy la ñu ci réewum Sénégal bi la yon nak ci trésor public boobule kër nak lu tollo 4,5 milliards ci suñu copar la fa daal détourné ngir amal mbir mi nag mu gën a nga xamante lañu la ñu duppee agent judiciaire bu état ñoo daal dé saisir wa dik di division des investigations criminelles ngir rek ñu leeral mbir mi bu ñu sukkandikoo nak suñ xibaar ñu jotee nak maître Moussa Bokar Thiam ak i service am dañoo déposé une plainte gannaaw bi nga xamante amal nañ ay audit ci direction du contrôle interne mu ñeel walum recette perception municipale bu Saint-Louis ak bu Mbacké gannaaw ci nak ci lañu à ab enquête bu yaatoo yaatu dik dal des procédés nag ci li nga xamanteni ci modi arrestation ñaari inspecteur du trésor ñom nak lañ leen di topé bokku na ci rek association de malfaiteurs faux et usage de faux escroquerie blanchiment de capitaux ak yeneen yu daan ñom ñaar ci waxtu yi nak ñuy addo ngeen di tewlu ñoo leen placé ci garde à vue foofee naka dit que di division des investigations criminelles laataa ñuy gëna a enquête bi bo xol bo xam ndax ñom ñaar ñooñu lañ leen di topé nak lu wér la am déet waaye nag ci jamono yi jàpp leen ci réewum Sénégal daanaka dafa na ku mi mu mel ni nag ci jamono ji nag ñenn ci askan nag ñoo siy loru ndax alalu réew mi ñu si bëri ñoom ñu ngi koy paacoo te kenn yëgu ko peut jàpp nañ ne sax lii dafa nekk loo xamante moom rek moo feeñ waaye am na ci leneen loo xamante itam am bu ñu ko lëñ ba ba ci leer dinañ ci gis ay yeneen i jëye kon tey jii mu mel ni naka alalu réew mi am na ci ñenn ñoo xamante ni sii ñoo ngi koy dundee lu ñeel wàllum détournement te li ci gën a looy waar saa su ne naka bu ñuy lim ay milliards yu takkoo takku la ñuy lim mu nekk nag ci li nga xamante ni mu ngi jógee ci gafaak réew mi ndax trésor public 4,6 milliards LONASE 1,5 milliards ca poste 5 milliards te loolu yëpp ay gafaak réew moo xamante ni contribution askan wi la kon alal jooju yëpp nag daanaka ñu si bëri ci ñoom ñoo koy dundee ñu ne deetawaay lu si mel ni itam wàllum trafic fës na lool ci réew mi si jamono ji ndax wàllum passeport diplomatique itam ci diggante présidence ministre des affaires étrangères ak ca assemblée na si ñoo xamante ni laale nañ si mbir moomee mu nekk nag loo xamante ni itam bett nañu bëri li Sénégal dund ci wàllum détournement ak trafic ndax bu ñu ko jàppee ni développement bi ñuy wax booba ak léegi du yem rek ci les bonnes ak.